xeex di ju baaxu ci da ngay jug jàkkaarloo noonu bi defante ak moom yéenekaay bi di Walf Quotidien ne looloo waral opposition bu Sénégal daas nañu seen ngànnaay fas yéene defante ndaxte ren di day bette gars front de terre ne ku mu ci opposition bu Sénégal yaa ngay def lépp ngir mën a egg ca jàmm ca atum bu dee El Hadj Malick ma ngay échauffé wu dee di waajal boppam Khalifa Sall ak kii di Karim Wade ña ngay tendeefal di xaar loo dem ne si Walf Quotidien laaj ci opposition bi ak noonu doxee mun a loolu lu baax la waaye dafa mel ne kii di Ousmane Sonko jiitu na leen sànni karawaas ndaxte caatum 2019 moo jëloon ñetteel wër na réew mi yëpp ci élection locale ak législative di Ousmane Sonko nekkoon ci géew bi defanteeg askan wi ndaxte mbir mi nag du njëkkante waaye teel a jug la te Ousmane ba mu jugee yàgg na teg ci mbooloo mi dar nañ ko teg ci partem mooy bi gën a organisé mooy ki leen ëpp bayre looloo tax yi moo ëpp gaay avance ëpp leen yéenekaay bi di direct news ni ginnaaw xas ak xaxar ak tàqalikoo bi nar a dox ci digganteem ak waa Benno Bokk Yaakaar moom Mimi Touré est mën na jugaat ci wàllu politique daf mel ne ku tëb dal ci xal dese na la géneenuk tëbin yéenekaay bi di direct news ne ginnaaw ba ko Macky Sall bañ a teg ca bopp assemblée nationale teg fa Amadou Mame Diop mais Mimi Touré ginnaaw fukki at yoo xam ne da ko ànd ak nguuru Macky Sall moom Mimi est mën na waxati li yey askan wi ndaxte nag est na njabootuk président waratunu doon ñoo xam muy xeej ji ci nguur gi Samuel Sarr ni loi boobu loi faj mer kase la waaye doonul lu gëm waa bennoo ne dañ koy jële ci assemblée nationale Mimi nag démbam dab ko ndaxte waa parti démocratique sénégalais seen diggante ak Mimi Touré mënta neex ndaxte dañoo gis ni paaka bi rendi kii di Karim Wade Mimi mooy ki ko daas jox kii di président Macky Sall bu dee waa Pastef bu Ousmane Sonko dafa mel ne yabuwuñu ci mbir yi kii di Mimi Touré waaye Mimi la nekkoon ma nga ca de njabootu ko président gi nekk ci bopp réew mi di badaxal ma daa rek Mimi Touré ne àndu ci populaire ne Mimi assemblée nationale ci yéenekaay bi di réew mi moo tax xaatina ak kayit jébbal ko assemblée nationale ngir ñu lijjanti mbir moomi lee mbirum président Macky Sall du yomb ndaxte dafa bëgg a bégal ñëpp cër ñëpp ci cër cëroo bi yéenekaay di réew mi ne mi Mame Mbaye Niang di Mamadou Mamour Diallo ak Abdoulaye Baldé ñoom ñëpp dal leen tudd ci mbiri yoon bu dee Mame Mbaye mbiri Prodac 29 bu dee Mamour Diallo ñi tudd ci mbiri Adji Sarr yoon waroon a sëgg seen mbir Macky Sall raxas na leen ba mu set teg ci renforcer leen yokk seen doole maanaam daal moom bu ànd moom defal lu la neex boo paree mu fal la fi la neex moo tax nekk cuune yi bëri ci nguur gi yéen i bi di Le Quotidien ne xoolal Dakar dem dikk rek dóor na frein te ci arrêté la jëm de gaay ma jëmbal jaañi ne bus ya pan nanu ji kaar ya pièce de rechange amu ci maanaam kaar bu xas ba pan jeex na tàkk teg ci ña doon liggéey Dakar dem dikk ñoom ñëpp toqi nan sawaratunu benn yoon ca liggéey ba ndaxte ay njiit yu cuune rek directeur bu bees bi yëkkati kàddu ne Dakar dem dikk buñ ci jugul lan doon dindi ci jamonoy Sotrac dinañ ko dundaat ci Dakar dem dikk ndaxte dina dóor frein dóor arrêt maanaam du demati du dikkati xanaa kay du ñàkk bu pétrole bi ak gaz bi ñëwee ba carburant bi yomb Dakar dem dikk mën a dawaat yéeni kaay bi di la turbine ne Petrosen bi ñu dénk mbiri gaz bi ak pétrole bi ma ngay tontu kii di Ousmane Sonko ak kii di Thierno Alassane Sall mi ne pétrole bi ñu tudd fii ci réew di Sénégal ci yéeni kaay bi di la turbine téeméer boo jël fukk rek la ci Sénégal di am maanaam décidi rek la ñuy dese Petrosen ne loolu du dëgg de lu wax ak kii di Thierno Alassane Sall téeméer boo jël juróom fukk la ba ci juróom benn fukk la ci Sénégal di am kenn du ko ci ëppale laas ne exploitation ci gaz beeg bi li ci Sénégal di am Petrosen wax na ko waaye nag coow lii yëpp bu amee dafa fekk ni koom ak mim réew di Sénégal nanu ko ŋàbbee rek dafa baaxu ci yéenikaay bi di 24 heures Abdoul Mbaye nekkoon fi premier ministre doon président alliance pour la citoyenneté et le travail ACT Abdoul mbay ne économique mim réew di Sénégal nanu ko ŋàbbee moo baaxul moom nag li ko dal baaxul moom mooy Kabiru Mbodj jiite woon fi wari borom wari waaru na yéenikaay bi di le vrai journal ne moom Golden Boy bi kay di daanu rek di surux dossier viol ban koy tudd ci réewum France moo ko indil ay jafe-jafe tey jii yéen kaay bi di source ana mbir mi ca France la dooree waaye dafa mel ne ñu koy yeggalee ci wàllu yoon fii ci réew di Sénégal source a ah, dellu siwaat ci détails yi bu baax a baax ginnaaw mbiri viol dañ koy jiñ ca tugal ci mbiri adultère escroquerie lañu koy jiiñ yéenekaay bi di vox pop moom ban ko mayee jëkkër ba ba mu amee juróomi weer ci mariage bi ñu takk ci centre ville Bandia ak Buku yéenekaay bi di vox pop ne soxna si jigéenu sëy la ëmb ba toll ci juróomi weer ginnaaw ban ko mayee ba sëy ba am ñaari weer ci la jëkkëram nemmeeku ni soxna si yamul ci moom ca la coow jib ginnaaw ñetti weeru mariage infidélité dugg seen diggante maanaam soxna si da doon bàyyi borom këram doon génn keneen ka mu doon génnal ab naaru libaane la di ab patron ba mu doon liggéeyal patron ba sëgg ca rek waaye mujjukaa jural jàmm ndaxte patron boobu boobule soxnaam mujj naa jot ca mbir ma ba seen mujj yëngatu yéeni bi di vox pop di ñu nettali ndaje mi borom këru soxna si ndaje ak naaru libaane bi doon doxaan jabaram ba ab ëmb sosu sa loolu lépp yéeni bi di vox pop mi ngi ñu koy wax xanaa ñooñu kay duñ sëggati bokk benn ndab yéeni kaay bi di l'évidence del seeg ñun ci pexe yi nguur gi teg ngir mën a wàññi dund gi ginnaaw waxtaan wi nguur gi woote ngir ñu mën a wàññi dund gi fii ci mu réew di Sénégal sénégalais yi yéenekaay bi di l'évidence dajel ñii am nañ ci yaakaar waaye ñii seen yaakaar dafa tas ci nii bis mën naa ñëw dund gu wàññeeku fii ci mu réew di Sénégal dund gu seer gi nag li koy dëggal mooy jën amatul légume amatul wala bu amee sax kenn mën a jot moo tax xale jigéen yi diñu bëgg a rey ak domoda lëndi ba vendredi ndaxte domoda moom tomate ak xóoyal farine rek ak ñetti boulet ah, pexe amul kay mëqate na muur rek